képp koo xam ne dangay liggéey ci administration te d'accord ak benn candidat bu la neexee nga def wiiri wiiri ah ba pare conseil constitutionnel suñu recours bi suñu avocat yi déposé teg ko nag étayé ko mënuma wax lépp nuñ ko étayé mais sama tuuti la wax ci jàngat rek dinaa ko séddoo ak yéen mooy ne li waraloon li waraloon parce que il ñu dellu siwaat ci wax ji wax ji nag Sénégal yi yëpp dañ koy wax boroom xam-xam yi kilifa yi boroom boroom xel yi nga ne moom moo jot nekk di parce que tey nit ñi déposé nañu recours constitutionnel démb la ak pour recevoir recours bu démb ak su à partir de suba ci lay commencé tontu bu ko neexee bu ko mu ba le va mais bu ko neexee suba suba wala gannaaw suba mu tontu ci laaj ñu ko laaj ñu ko laaj dafa nekk ne xel nangu parce que kii nga xam moom moo nekk CDC argument bi tax mu ne duñu jox suñu attestation tegu ko ci suñu xaalis matul de tegu ko ci sunu ci sunu ci sunu ci lenn de xam nga ci lu mu ko teg daf ko teg ci ne duñu ko jox parce que ñun nekkuñu ci fichier bi déjà loolu yoonam nekku ci de un de un yoonam nekku ci waaye de deux bu ci dugalee tamit làmmiñam te yoonam nekku ci li ñu war a xam mooy argument boobu mu wax ne moom moom la jël

juge bi delloo nañu ci fichier bi ordonné na ñu delloo ñu ci fichier bi kon diggante DG ak DAF lu fa amul ci ñoom la ci seen coobare la ci seen bëgg-bëgg la kon nag na ni nit ñi xamee noonu recours boobu ñu déposé dañ ci am yaakaar dañ ci am yàkkin waaye recours bi nag waruñ ci am yaakaar waruñ ci am yàkkin ba ñu tëdd nelaw ndax ñun fiñ tëdd toll nii ak fii ñu egg nii ay nelaw egg indiwuñu fii pas-pas bu am solo ak ngëm-ngëm bu am solo ak yaakaar ju dëgër moom moo ñu fi indi kon nañu fasaat ñett yooyu pas-pas ngëm-ngëm ak yaakaar nañ ko fasaat ginnaaw sax xam nañu droit ni muy doxee ci réew mi xam nañu justice ni mu jengee ci réew mi mais du tere du taxawaat suñu pas-pas taxawaat ci suñu yaakaar taxawaat ci suñu ngëm-ngëm tey du guddi nelaw ku yoroon sa ay dog def ko ku yor sa ay kàmbar def ko ku yor sa ab xalaat sa ab dox sa ab yaatal sa ab jottali na nga ko def parce que ñëpp war nañ xam ni guddib tey gii jëmale ëllëg ak peut-être bis yi di ñëw bu fekkee conseil constitutionnel dem na ba le mooy bis suñu tàqali ak suñu bëgg-bëgg bis suñu tàqali ak suñu ndam bis suñu tàqali déjà ak suñu candidature ñu accepté ko muy la candidature la candidature du président Ousmane Sonko mu nekk loo xam ni nag euh, avocats yi ñu ngi leen di gàcce ngaalaama def nañu seen te wareef ba mat sëkk Euh, militants yi tamit def nañ seen wareef ba mu mat sëkk pare ne nañu taxaw nañu ñu ngi cotiser ñu ngi leen ciy di di joxe koppar yi di def lu nekk pour mën a préparer campagne bi mën a am mais nag nañu fexe itam képp ku ne ci réew mi na yëg ne président Ousmane Sonko waree fam nag wàcc na lépp lu mu mënoon a def def na ko jamono jii ñu toll moom amatul benn jéego. bu mu mënati teg moom jéego yépp yi mu waroon na teg moom teg na ko ànd ci ay avocat def na demande de candidature am xeex na ko utiliser na xelam utiliser na xalaatam utiliser na ngëm-ngëmam utiliser na pas-pasam dem jusqu'au bout le bout du mooy fii tey ñu toll le bout du bout mooy fii tey ñu toll mooy dem déposer recours argumenter ko étayer ko teg nag conseil constitutionnel devant l'histoire tek len devant leur destin ne leen nag léegi nag yéen la ak askanu Sénégal yeen la ak aduna Badio Camara yow ya ko jité yow ak juróom Ben yi nekk sa ginaaw muy Awa djenn muy jaaw jaawara Mamadou Jaawara muy euh, Koulibaly ah muy euh, muy euh, ki ci des euh, ma jox léegi dinaa ñëwaat léegi ci liste bi ñoom ñëpp lim leen A ba Z yéen ñii ñëpp kat vous êtes devant votre histoire vous êtes devant le destin te nag na ngeen xam ne lii ngeen di jël war ko atte na ngeen ñu ci xool ñun askanu Sénégal na ngeen ci xool génération yi nga xam ne ay ndaw lañu am yaakaar ngeen ci ñoom seen yaakaar tas bu ñu jël gaal gi di dee ci àll bi.

Moi, fay am ben ben ben rupture bu am dañuy tourner page livre bi dafa 10. dañ ko bëgg a lañ ko bëgg def buñ ko vers l'avenir a di def vers l'avenir buñ ko wëlbatee ñeneen ñi ñëw ala al ci yoon bobu rek continuer di dem changé ba faw alal nga xamantene ne ko bok ñepp mën gis yii xeetu ñi am ba am ba am ba am dundee loo xam ne doyaluñ ko dara dinañ dee ba seeni sët sëtaat du ko jeexal loolu dakk fi ñi nga xam ne dañuy ñàkk ba du ñu mën a dundal seeni njaboot ba du mën a dugg sutura loolu tamit dakk fi parce que nañ waxante dëgg ñaari diggante yi dafa ëpp te ñaari diggante yi li tax mu am mooy corruption bu bëri sàcc bu bëri détournement bu bëri parce que ku yeboo waxal yàlla xam ne ñii di liggéey ci nguur ne liggéey ci politique jege mbiru askan wi li ñu yor bare na lool ba jéggi dayoo te askan wi ñuy liggéeyal yor ñu dara ba dara jeex te loolu nag mënul continuer mënul continuer parce que askan wi dañ cee am seen wàll askan wi mënuñu lekk mënuñu faju mënuñu am liggéey mënuñu takki soxna mënuñu am ay kër mënuñu def dara ci seen àdduna te ñi leen di liggéeyal war a nekk seen ay ndaw ñooñu kenn ku nekk ci ñoom yaa nga yor lu dul jeex kenn tegu la bët kenn iñaanewu la waaye li nga yor bu fekkonte ne sa ñaq moo la ko jox wala sa juddu moo la ko jox wala sa liggéey moo la ko jox bu la neexee bu mu jeex mais li nga yor yaa ngi ko yor ci ndoor ndodd askan bi parce que suufu askan bi la ñuy jaay di ko séddoo alalu askan bi la ñuy détourné moomeelu askan bi moom la ñuy jël paacoo ko séddoo ko ci seen biir loolu lañ bëgg bu jeex page boobu la ñuy tourné incha allah 2024 kon nag yéen juge conseil constitutionnel Badio Camara nga ne ci seen kanam na nga xam ni dossier bi ñu la indil mu mooy dossier rupture boobu nga taxaw ci taxawaay boo xam ni na nga xam ni du yow ak le président Ousmane Sonko du yow ak l'avocat du président Ousmane Sonko yow la ak ñun sénégalais yi yow la ak génération yii di jur di judd waxuma ñun lu ñu jur de mais ñu juddoogul ñun suñuy doom ñun ñu juróogul sax Badio Camara dinañ la nettali sun ay doom ñi nga xam ni juddooguñu sax sëy yi nga xam ne takkaguñ leen xale yi nga xam ne juddooguñu ñooñu ak ñi ñu war a jur ak ñeneen ñooñu ñu ñu jur ñeneen ñu ñu war a jur ñooñu ñépp seen ay gët ak seen ay nopp incha allah yow Badio Camara yow ak ak euh, yow ak magistrat yii nga àndal di ngeen di di bokk ci ñooñu nga xam ni yéen lañu war a yéen lañu war a dajale xool l'histoire l'histoire de cette de cette euh, ñu xool seen histoire damay xol juste euh, euh, damay xol juste liste bi parce que dafa am solo voilà damay xol juste liste bi nous ma baña xol parce que c'est important ñu lire ko ben yoon voilà ñu lire liste bi ben yoon donc ma ñëwaat di wax tey jii bisu tey ci guddi ci la euh, monsieur Badio Camara madame Aminata Ly Ndiaye madame Awa Dieye monsieur Mamadou Mouhamadou Diawara monsieur Cheikh Tidiane monsieur Cheikh Ndiaye monsieur Youssoufa Diaw Mbodj monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly tey la ñuy jël décision boo xam ne tey ci guddi à partir de tey jëm suba jëm gannaaw suba bu leen neexee ci lañu wara jël décision bo xamné dina changer avenir u 17 millions de Sénégalais kon nak lolu responsabilité la ñu ngi leen di ñaanal yalla na leen yàlla gindi yal na leen yàlla suturaal kattanal leen ba décision boobu ngeen teg ko ci ndax ndaxte nak bu ngeen ko défé defalul leen ñuko ñun ñi dé déedéet Sénégal ngeen ko défaral ak génération yi di ñew ëlëk ñom ngeen ko défaral

parce que leeralu lu ñu